fa mu taxaw tey di dox li muy dox tey loolu liggéey Ousmane Sonko loolu tournée yi muy def nii tey mais mais moom laa lay wax lépp lu muy def fi mu ne nii daanaka taxawaay Ousmane Sonko loolu mais mais mais mais Guy moom moo dane moom bu xel xalaat ñu koy tudd ci wàllum plan B. et puis buñ buñ def buñ def ci xelam. non buñ ko dama ne buñ ci def xelam buñ ko def ci xelam man loolu laa wax buñ ko waxtaanee di ko def ci xelam parce bugguma mu nekk ci xelam. bu ko defee ci moom bu ko defee ci xelam. da koy da koy appliqué day taxaw wa wax. dëggal boppam dëggal boppam. loolu laay bañ. te man na am dara. non dama ne dama ne. Hmm. Pastef mën nañ wala ñoom ci seen biir. Hmm. mën nañ am ñeneen ku dul Guy Marius Sagna très sincèrement. mën nañ am ñeneen man de j'aurais été à leur place. bu dul Ousmane Sonko mataan tànn Guy. parce qu'il est lu tax. te am naa fu ma ko teg man dama ne. critères mais yow lu tax lu tax nga jàpp ni Moussa Balla Fofana. Ah. waaw il est de Pastef kan mooy naatable xam-xamu Moussa Balla Fofana kan mooy naatable ne Moussa Balla Fofana mënut nekk euh, c'est pas un homme d'État. Mm-hmm. il a la carrure d'un homme d'État. Mm-hmm. il maîtrise bien le le le projet de Pastef. Mm-hmm. projet bi ñuy wax ñu ci bari xamuñu lan mooy projet Pastef. Moussa Balla Fofana ngay toogal mu lay tojal point par point. te ñu bari ci ñoom ñii koo ci laaj ñi nga xamante ni ñu ngi sax Pastef nekk ay cadre koo ci laaj projet Pastef du la ci wax ñeent juróomi point yu mat Moussa Balla Fofana maîtrise le projet de Pastef mais ay la yeween ñu def des lobbies autour de Moussa Balla Fofana pour mu nekk le candidat de Ousmane Sonko wala ñu def des lobbies autour de quelqu'un d'autre mu nekk la candidat de Ousmane Sonko moom a gënal foofu ñu ni nañ jël Guy Marius mu nekk candidat Ousmane Sonko très sincèrement. je n'ai rien contre je n'ai rien contre Ousmane je contre Guy Marius Sagna sur quelle base mais dama ne Guy bàyyi leen ko assemblée quoi bàyyi nañ ko loolu de moom eh, <laughs> sa gis. mais Guy Marius Sagna ñëw assemblée commencé buy liir takk non nañ ko bàyyi foofu quoi assemblée baax na. ah da jàpp ni day day changé day day changé. non nañ ko bàyyi rek posture bu mu amee. parce que Guy Guy c'est un combattant moomoo nag doo ju doo junj foofu ba pare. non Guy Marius Sagna laa gis. ci ko nga xamante ne ay revendication mën naa ko man jàpp ni dafa légitime mm. mos naa ko fi wax ne ma ne gii Marius Sagna su ma doon moom dinaa fexe ba kenn du politiser sama combat maintenant Guy Marius Sagna nga doon gis ceeb cher wala diwlin cher mu wàcc ci mbedd mi di di ñaxtu ndax ceeb chair na wala courant cher na wala diwlin cher na ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi ñaata yoon la Guy Marius Sagna def kaso mënu ko compter alors que ñii nga xamante ne ay chef de parti lañ wala ñii di ay homme politique saa yi bu génnee ci mbedd mi benn benn affaire la mooy mooy mooy mooy des des des des choses politiques. Mm. ay revendications politique la ñuy porter. Guy Marius Sagna léegi sax la commencé di porter ay revendications politiques mais Guy ku ko xam xam ne son combat était très noble. Mm. que ça soit nga nekk ci opposition bi wala nga nekk ci pouvoir bi da nga doon gis sa bopp ci combat wu Guy Marius mm. bi mu demee assemblée ma ne leen assemblée mënta am. mënta am député bu mel ni Guy Marius Sagna mais à ma grande surprise mu surprendre ma ci yenn actes yu bari yi muy daw yu mu doon def foofu moom ak Barthélemy Diaz mm. ñu surprendre ma parce que mënu ma woon comprendre ne seen seen seen seen seen seen seen degré de de seen maturité politique seen maturité politique mën na wala seen patriotisme mm-hmm. war na mën a dépasser yenn actes yi biir assemblée nationale Guy Marius Sagna premier jour mu taxaw ci premier jour ouverture bi mu taxaw ci kaw photo boobu noonu mm-hmm. laa commencé di di di di manquer d'estime envers sa personne parce que man dama amoon beaucoup d'estime envers lui mais c'était pas le contexte moom boobu noonu non contexte boobu mais depuis lors gisatuñu ko mais mais qui te dit que bu nekkee président yenn yenn affaire yooyu noonu du yeewaat ci moom donc il ne peut pas porter le projet de PASTEF je ne dis pas il je ne pas ça mais dama ne ñu ko def ci xelam. mën na koo àttan ay la yowén de mm. parce que projet Pastef maîtriser wuma ko mën na koo àttan mm. mais dama ne ñu def des lobby autour de Moussa Balla Fofana mm. wala keneen ku nekk ci ñoom ku nga xamante ni xam nañ ne kii euh, voilà c'est un homme d'état mais non bu ñu def ci xelu gi Mari Sagna nekk président de la République dama leen ko ngir yàlla yaa Moussa loo ci xalaat <laughs> mais man li ma ci xalaat wax naa ko parce que parce que <laughs> tey bu ñu xoolee ñenn bañ ne plan B mhm. euh, euh, automatiquement seen réflexe gi Mari Sagna la leen joxoon te ñu ci bëri mhm. dañoo gisoon ni au moment bi Ousmane Sonko wéetee mhm. moom moom moom euh, moom le député moom moo nekkoon ci wetam ci moment yi mu gën a critique ci moment yi mu gën a gën a métti tey ñu jàpp ni bu ñu doon choisir plan B tey moom la war a doon d'autant plus que ñu ngi gën a dem waaye nguur gi mi ngi teg gën a teg ay jalon ak ay pas yoo xamante ni dañuy écarter d'office Ousmane Sonko. Euh, ay demeen boo xoolee parcours Guy Marius Sagna mm-hmm. ñun ñii ñëpp mosuñu ko xamee politique. Mm-hmm. il a toujours été du côté du peuple di mener ay combat yoo xamante ni soit. Mm-hmm. askan wi jot seen ak ak seen yelleef. soit dund gi cher na wala ñun ñii. moo xam ñiy liggéey moo xam ci secteur privé bi moo xam ci administration bi mhm. amuñu ay conditions yu baax ci sunu liggéey mhm. mu ciy mën a ay combat wala wàllu ressources yi nga xamante ni ñoo tasaaroo ci gox goxaan yi mhm. ña fa dëkk mën a maanaam jëriñoo ressources yi am seeni gox goxaan euh, gis nañ à un moment donné gi glissé ci terrain politique bi mais li fii ne ci parti yëpp lu tax yéen posé wu leen question ne lu tax Guy porter le choix sur Pastef lu tax mu gis boppam ci Ousmane Sonko lu tax mu gis boppam ci projet Pastef. selon selon ak li fii ne ci parti yëpp. selon yaa Moussa loolu lan la. mais c'est parce que tout simplement tu sais que Guy ak Ousmane dafa am benn concept goo xam ne dañ ko gëm. di ko xeexandoo. Mhm. muy le panafricanisme. danoo daje ci combat boobu. Mhm. mais au-delà du combat du du panafricanisme mais il y a patriotisme. Mhm. ñoom it dañoo am gëm-gëm googu mooy nationalisme bi nga xamante ne ci suñu wàllu ressource suñu wàllu koom-koom am maa bañuñu ñi ne ci biti waaye ñun d'abord xeex néocolonialisme bi. Mhm. xeex loxident façon bi nga xamante ni tey moom la ñuy jëflante ak ñun ci suñuy ressources. Mhm. mais Guy Marius tey gis boppam ci projet Pastef gis boppam ci leader Ousmane Sonko. Mhm. moom jàpp na ni war ma mën a ànd ak kenn lu dul Ousmane Sonko. te tey jii nii bu fekkee Ousmane Sonko est dans capacité tey jii nii. néew ma du ko doon parce que man je ne suis pas dans le secret des dieux. Mhm. pour rendre définitif tey jii la situation d'Ousmane Sonko. Mm -hmm. man dama gëm ni ba waxtu yi nii waxee ni. Mhm. rien n'est encore définitif par rapport ak kaam. Mhm. Dieu seul ndax c'est vrai il y la radiation bi nu acté à travers l'huissier. Euh, il y a tout un débat là-dessus mais experts yi wala boroom xam-xam yi jëm ci droit tey. Ah, jàppu ñu ne ni ma ko waxee léegi. waaw xam nga nguudam boobu sax boobu mën nañ ko bañ a tudd xam nga man lu tax ma tudd. GRADEC. Mm. Mm. c'est-à-dire képp kuy teewlu kooku muy wax di nga am benn genre équilibre di nga am benn impartialité. Mm. new ma tey jii ni ku mel nii maanaam euh, Mouhamadou Gouda Mboup bu waxee du am impartialité. non du mais Gouda Gouda xam nga dafa far. dafa am fu mu féete. donte il se prend pour quelqu'un d'indépendant mais. on ne peut pas mosoon naa ko fi wax fii leen ko invité. Mm. ndax loolu xawoon na indi. Mm. tension un peu ci sunu débat bi parce que bi ma bëgg a gëm loowee ne moom lañ def. Euh, euh, poste sam bi nga xamante ne moom lañ ko jox ci biir Pastef waay mm. ci taxawaayam. ba pare mu ne loolu doon naa ko waaye taxul ma ma bokk Pastef ma ne nag loolu mënta nekk. ndax jëndul munoo xëy. ñu jox la bureau palais palais palais de la république bii nga ne loolu taxul ma dugal sama loxo. ci li nga xamante ni moom mooy non attends mënta nekk. Mm-hmm. donc euh, loolu man gëmuma ni vraiment Ngoné Mboup su waxee loolu man d' accord ma ci. am naa mm-hmm. droit sama position mm-hmm. keneen mën na gëm la leneen. mais tey ku mel ni Ababacar Fall bu. de voilà li ma li ma li ma li est important parce que man j'aime revenir tey jii nii ci. Euh, euh, ngir gën a leeral Ababacar Fall xam nga moom la radiation annoncée des listes électorales du leader de Pastef ne me semble pas fondée te indi na ay argument am mm-hmm. te man laa gëm tey tamit ñun ñëpp xam nañ ni euh, wàllu radiation boobu waxoon naa ko sànq xanaa ma baamuwaat ko boo jëlee dossier bi nga xamante ne moom mooy bu Mame Mbaye Niang bi la condamnation n'est pas encore définitive mm-hmm. ñun ñëpp d'accord nañ loolu mm-hmm. waaw wala déet n'est-ce pas ñun ñii ñëpp ay taskatu tey ñun li ñuy soxla moom mooy ay xibaar yu wér te source yu leer la ñuy wax ñu teg ko ci kon mënuñu rendre définitif tey jii cette condamnation l'affaire Mame Mbaye Niang mais bu ci topp mooy bu euh, Adji Sarr bi pour lequel il a été condamné par contumace tout le monde est d'avis sauf ceux qui le poursuivent que le jugement est anéanti dès lors qu'il en détention hmm? malgré les élucubrations de ceux qui prétendent qu'il été arrêté pour une autre affaire bi mujj bi mooy lañ ko mujj jàppee ba yóbbu ko ci condamnation bi jàpp nañ ni dafay bénéficier d'une présomption d'innocence et n'est pas condamné puisqu'il procès. mu yenn ci juriste yi noonu mais ñun ñi ñëpp xëy nañ tey ñu jox ñun notification à travers l'huissier comme quoi que ni il a été radié mm. des listes donc man j'aimerais bien ñu jox ma ay argument indil ma loi indil ma fi nga xamante ne moom lañ sukkandiku pour radier ko. kon imposer nekkul lu ñu lu war a imposer wu mooy le plan B. le plan B malgré tout spectre la sax à dire ce ombre buy plané la ci kaw tey jii nii euh, Pastef dissous donte ñu ngi cour suprême pour revendiquer seen dissolution ba donc on est tous d'accord que le parti est dissous n'est-ce pas donte nit ñi jàpp nañ ne loolu war ta mën a nekk ndax euh, y a tout un débat là mais li ma bëgg wax mooy te nga wax ko sànq moom moo di ko leeralal tey ku mel ni Guy Marius Sagna mm-hmm. man euh, jàpp naa ni yaa a pas mieux wala yaa a pas meilleur candidat du camp de Sonko du camp de Sonko laa mm-hmm. wax de mm-hmm. que Guy Marius Sagna peut-être nag moom moo am na ay réserve mhm. ndax gis na ay comportement yoo xam ne doy ko comme man am naa réserve ci jëmm ah, ji ah, parce que man bëgguma personnaliser débat bi ça ne m'intéresse pas ku ne xam na ne Guy Marius Sagna bi mu doonee député ba tey ak bi mu mhm. duggee ci langue politique bi bokkut ak Guy Marius Sagna bi newoon ci société civile bi bokkut ak Guy Marius Sagna bi daan am bi daan bi daan am un discours woo xamante ni tey daawlu mais dara mé mhm. waxuma la média français mais daawlu mais dara la France mais ay jamono dox ba Guy Marius di daagu biir France Guy Marius Sagna di daagu biir Europe jamono ko laaj Guy Marius euh, Sagna ñu invité ko ci plateau média français yooyu noonu le discours a changé ci sur sa position vis vis tey jii nii de l'Occident. mais dañu dox te encore te xam nga lu tax. jamono xam xam nga lu tax ma def taxaw seetlu ci loolu. parce que rien n'a encore changé ci suñu rapport avec la France. mais internationalisation combat bi est-ce que du moo toll foofu. non. ginnaaw ginnaaw buntu yëpp tëjal nañ leen ko fii ci mais gis nañ neuf pays africains fan yi euh, taxawal benn kuréel panafricain euh, Africa Passé pour internationaliser mhm. le combat mais c'est de leur droit mhm. Aïda en politique pour ne pas rejoindre l'avis de Machiavel mhm. dans son fameux ouvrage Le Prince mais tous les moyens sont bons pour s'en sortir pour arriver à ses fins mais Momo dans un passé récent tous ces leaders de l'opposition la ñoom ñoo bokkoon ci liste majoritaire bi am ñi doon député tey ban liste lañ bokk. suppléant ban liste lañ recalé. majoritaire bi ñu fi recalé liste majoritaire bi euh, Barthélemy Dias fan la demoon pour revendiquer li ne mel. Euh, ñoom leader yoon lan lañ fi waxoon ne seen liste bu bokkul luy xew. élection du am. élection am na wala amul. non loolu chaque ko. bokk nañ wala bokkul. non man je parle sur des donc c' pour te dire que Aïda xoolal ñoom ñoo wëlbati quoi ne y' a pas de problème. Mm. suñu amee nu nu doxalee day mel ni ñafalu suñu biir nawloo wuñ leen. nañ leen pousse ñu dem. Mm-hmm. ñun ñu ne ci ginnaaw waaj li nga xamante ne mooy présidentiel bi. Mm-hmm. et malheureusement nag bu ñu leen bëggee gëmloo présidentiel boobu. am na ñu nar a bokk mais ñun nar ñoo bokk. Mm-hmm. tamit man bu ma bokkoon Pastef sax fi mu ne nii lu mu laaj ci xeex danaa ko def. te ni waxante dëgg ay demee man dama leen koy nangul seen droit lañ nekk on est en terrain en politique il ne faut jamais perdre espoir pourquoi il ne faut jamais perdre espoir. qui aurait pu imaginer tey wax Abdoulaye Wade après vingt six ans d' opposition découragé lu woon ba ñibbi tugal toog foofu. c' est bi muy ñëw sax waa waa mbokkam yëpp. dañuy waxante dëgg rek ah ah man bi muy ñëwaat. waaw mbokkam yëpp ne ko da ngay yàq sa xaalis jarul ngay demaat. doo bokk kon Pastef te nañ leen ñu gëm ba à la dernière ba dernier moment war nañ mën a bokk. mais argument yi ma wax fii Sonko mën naa bokk wala war nañ mën a bokk. déet <laughs> foofu la question ne la ay demben bu nu waxee droit. wax sa situation juridiquement parlant moom moom moom waa Pastef ñoo la gën a xam ni parti bi dissoudre nañ ko xam nañ ko moo tax ñu attaqué ko Cour suprême am déet. Mm. bu amul woon duñ ko def. deuxièmement bu benn la xam nañ ne Ousmane teg nañ ko situation woo xamante ni waxuma la sax bu naroon a bokk waaye wér-gu-yaramam mayu ko fi mu ne nii. te mm. un président c'est à la fois nga mën a tenir physiquement psychologiquement. la ca des man cee topp ndax wér-gu-yaram lu mu la mayul pour nga matal ko wala nga def ko c'est tout problème mais laa n'est pas le yow da nga ma ne ndax war na bokk wala dafa war a bokk ba waxtu wi may wax ak yow ni man li ma jàng ci droit sama astuut xam-xam gi te ma fàttali ko léegi ci propos Ababacar Fall te ma sukkandiku ci yenn borom xam-xam yi mboolem lan koy toppee ba mu ne ci situation bi mu ni hmm. rien n'est encore loolu leen d' accord ngeen ceeg man wala d' accord leen ci. on est parfaitement d' accord. waaw léegi nag ñu xëy ñu ñu ko comme xibaar. Hmm. léegi ñun ñii ñëpp bëgg nañ xam radiation ba fan la sukkandiku radiation wax radiation fan la problème bi nekk kon Ousmane Sonko man damay jàpp ni ba waxtu wi may wax yow ni du mën naa bokk dafa war a bokk loolu laa gëm léegi nag bés bu ñu demee ba ca cappaandaw ga ba ñu indil ma mhm. ne ma sa situation sur le plan juridique mhm. ak la koy toppee définitive na mhm. conseil constitutionnel fi ne nii am le dernier mot régeté lépp ah boobaa ma gëm ne yi yëf am na mais man pour le moment man jàpp ma ne war dinaa sukkandiku ci euh, huissier bi ak notification gi mu indi ni ci seen document bi pour ne Euh, radié nañ ko bokk ci liste man man personnellement ah. euh, je suis pas d'avis avec cette radiation annoncée par l'huissier à travers seen xamoon na dafa am loo ci yokk mais les différentes non dafa am lu ma war a préciser sax ci ñaari wax yële moo parce mm. que apparemment <laughs> yaa daa déggul bu baax non non pas yaa pas yaa sax mais <laughs> moom ma waxul ak man xam nañu wax wax ñi ñu ko moom <laughs> non non non dafa am euh, sama benn mm. sama benn nijaay bu bu baax bu may seetaan mm-hmm. boo xamante ni comprendre préciser ñaari affaire mooy bi ma wax ne euh, bi ma wax ne élection li élection présidentielle yi mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko dàq dama ne waxuma ne dañ koy dàq mais dama ne situation bii su présenté wee élection mën na fee bañ am nee nañ nag élection dara mm. bu dëkk bi doon tàkk sax dara du ko mën a teree am mm. mais dama ne la autorité yi mën nañoo jël ndogal ne situation bii su présenté woo mm-hmm. élection du am su fekkente ne élection du am. loolu mooy mayaat Macky Sall le temps de defaraat li nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy situation ba élection am. Mm-hmm. Macky Sall mën na jël mën na jël décision boobu wala état ci jëm boppam mën na jël décision boobu peut-être. musta am Sénégal musuñoo xalaat ne mën na am mais dama ne il faut s'attendre à ça mën na mën na am. ndax Sonko rek situation bu exceptionnelle voilà exactement Sonko Sonko lañuy ñuy convoqué xale yi duñ jàngi. Mm-hmm. yi duñ duñ nit ñi duñ dem marché. Mm-hmm. ah te oto yi duñ daw station yi duñ jaay. cest situation exceptionnelle la. Mm-hmm. donc dama ne situation exceptionnelle boobu bu ko Ousmane Sonko imposé situation exceptionnelle boobu mën naa amaat. hypothèse la hypothèse la. waaw mel na leen nag lii su amee loolu moom mooy am. Mm-hmm. beneen bi mooy que nee na man ma waxuma ne Sonko dafay gagner élection de le premier tour dama ne Ousmane Sonko nee na. ak ñoom ñi ànd ak moom nee nañ dañuy gagné élection yi première tour dès le premier tour. su fekkente ne ñoom jàpp nañ ne dañuy gagné élection yi dès le première tour jarul ñuy forcer ki nga xamante ni moom Ousmane Sonko nañu defaru wut un candidat bu dul Guy Marius wut un candidat ngemb ko. pour ñu ànd ak moom mu gagné dès le premier tour su fekkente ne loolu noonu loolu noonu loolu noonu ñoom. Euh, mm-hmm. dëgg dëggal nañ seen bopp ne dañuy gagné élection présidentielle. Mm-hmm. mu ngi mel ni Yamoussa wax na ko fi léegi élection législative yi. dafa am ay communication yu bari yu am. dañoo mhm. jékki-jékki Ousmane Sonko ne dommage suñu liste bi lii lii après mu ñëwaat ne bu ñu bokkul suñu liste bu ñu ko validé wul élection du am. Mhm. ñoom ñëpp ñu commencé def communication bu ngànd ci loolu. ba nit ñi mhm. jàpp na élection du am. après fu ñu mujjee ñoom ñoo battre campagne pour li nga xamante ni moom mooy. liste Sonko moo battre campagne sax ba ba waaw bu am solo. te te te te te waa kër xalifa Sall yi waxoon nañ fi ne Khalifa Sall bu bokkul ci élection yi 2019 élection du am waa kër Karim Wade yi waxoon nañ fi ne bu bokkul ci élection Karim élection du am donc élection du am bu diw bokkul loolu pour mën a wax ju yaaxu la élection ala kulli xaal day am. Mm. maintenant nag comme élection dafay am te ñoom Pastef jàpp nañ ne dañuy gagné élection yi dès le première tour. nañ ngemb keneen kudul Guy Marius Sagna ñu ànd ak moom mu gagné élection yi man loolu laa wax. <laughs> d' président Macky Sall dafa dem fële ca France 24 def fa benn sortie naam nee na du wax ci Ousmane Sonko.